yi moom ni ñu ko rek mën naa indi ci réew mi nekkoon comme lii doxalaas réew kenn du ko jox. foo ko teg. du ko jox réew mi am capacité réew mi sax matewu ko matewu ko matewul lennam jëmmam sax man dama ko xool ba <laughs> teg ko ba si Bougane moom mën naa def nekkoon rek.